Ah, lu sept tonnes cinq cent yëpp amut ma xool kaamil bi alxuraan amut ma xam ni kon lii du dëgg lii du dëgg caaxaani kese la képp ak bànneexu bakkan <laughs> point donc man moom vraiment foofu monde boobu laa nekk kenn mënu fexe fexe fexe ba ma gëm leneen foofu laa nekk am na ñoo xam ne nag toog muy dox bi da leen arrangé tant koy def bëgg nañ gaa nekk ci sëñ sëñ maam Mor Mbay bu ñu demee ba naan sëriñ maam Mor Mbay mais maam Mor Mbay lu ko def sëriñ xam nga loolu du cër maam Mor Mbay ñu naan sëriñ maam Mor Mbay ban sëriñ la kan moo xam fu ban diplôme la yor xanaa sëriñ moom <laughs> ab garambu bu boo demee ba Sénégal ñaan maam Mor Mbay ah xanaa ku ñu woowul sëriñ dan laa yeb rek sëriñ maam Mor Mbay fu mu jàngee ban université. da ngeen ko mos gis mu ubbi alxuraan métti ju foofu ngi sëriñ Maam Mbay koo xam ni doomu Njaay Commando la biiral daa biiral dafa fekk Njaay Commando bi nga xam ni bat la nekkoon euh, ka ka ka caaroy euh, ñëpp xam Njaay Commando ca yi yor njabootam fàq man bii di kuñu kuñu bu dugg këram ba biiral fa doomam ngeen taxaw ne bëgg naa Sëriñ Maam Mor Mbay kooku est-ce que respecté nga sa njureel yow est-ce nga yow yàlla est-ce nga yow œuvre Serigne Touba yi lu ci daj est-ce nga yow alxuraan bi lu def sa maam Mbay mii taxawaalukat wëndaalukat boobu biiralkat bi lu ko def Serigne lu ko def Serigne <laughs> lañ jàppee ñoom ku ñu gis rek mu sol ñetti abdu rek ñu ne Serigne léegi nag il faut ñu éveillé conscience yi ne Serigne c'est pas n'importe qui Serigne grade la mooy comme ñu ñuy wax ne doctorat docteur ñu Serigne docteur en science docteur nangam professeur loolu <laughs> tamit moolaa Serigne tamit valeur la Serigne diplôme la da ngay jàng lettre science arab alxuraan xam-xam ba maîtriser ko toog ñu ne kii sëriñ la sëriñ du ñetti abdu du maxtuum kon nag gars yi pour bañ a génn ci sujet bi li may wax rek moom mooy ñu focus ci lu ñu nekkoon am fulla ak fayda Ousmane Sonko day dem ci élection yi nañ ko jàppee foofu voilà yéen bokk waa Biafra fa la dëkk Njaay commando xam nga ko baax voilà yéen bokk koñ doomam bu jigéen léegi mi ngi sëy feneen sax Mamboor Mamboor Mbay Mamboor géwéloo Mbaay moo ko biiral doomam biiral njaaloo heure bi bu ñafoon maamam téeméer yar <laughs> duñ a daan sëriñ bu ñafoon maamam téeméeri yar tey charia bu daaroon ci kawam moom maam Mor Mbay moom ñàpp nañ maamam téeméeri yar yaram bi yëpp a dagg fu nekk nii waaw comme <laughs> bu bàyyeeku la <laughs> wala dëkku bu jongu la bu jongul donc moo tax ñu daan sëriñ mais fu mu ne nii mu ñuusoon maamam téeméeri yar yu saf sàpp ci mbedd mi gulaali ko ba taari tànk yaakaar naa ne jamono ji ku ko romb di nga wax leelu sëriñ <laughs> voilà yàlla nañu yàlla musal te muccal ñu ci xeetu sëriñ googu <laughs> nañ teg charia gi waay hmm? heure bi bu ñu ñafoon maamam téeméeri yar doq doq ngir xale yi di ñoq ñu lappide maamam kon heure bi kenn na sëriñ mais kooku dañoo kon réew naax saay la réew naxa sa xandang la ku leen neexee sëriñ <laughs> euh, voilà donc les gars focus nekk ci lu ñu nekk am ci fulla ak fayda am leen fulla ak fayda ñu nekk ci lu ñu nekk ba jël ndam li Ousmane Sonko dafa war dem ci élection yi buñ koy gañee foofu lañ koy gañee mais kenn du ko tere dem ci élection yi voilà nay leer yooyu yëpp sax ay deuxième la la rupture day yeewi taxawoo ko xoolal sa waay jamono ji fii lañ ne benn combat la Ousmane Sonko day dem ci élection yi kese sa waay na yeewi yeewee koog nañ tasaaroog na TFM rajoxook xoog nañ bombardé woog suñu gàtt na wu ca Sonko day dem ci élection yi loolu moom moo fi musa ne ñoom ko man loolu rek laay dégg jamono ji damaa gumba tëx ci lépp bu TFM doon rajo xoog sama muuti na yeewi di bombardé wu yoon newu ca Ousmane Sonko comme nu ma jàkkaarloo son portable bi laa jël teg Ousmane Sonko ngi nii Ousmane Sonko day dem ci élection yi dara du ko tere dem dara du ko téye point fu ne ni déggutuma dara de ngeen di wax nii ay kesew kesew la ay waxi waxi picc la Ousmane day dem ci élection yi nga nu ma xullee nii sama téléphone jàkkaarloo mu mooy xool ma koy xool loolu laa gëm Ousmane Sonko day dem ci élection yi lépp détail la jamono ji dégluwuma dara monde bu ma nekk nag <laughs> nekku leen foofu vraiment monde bu ma nekk nekku leen seetlu leen dara ban 1900 laa gëj wax ay waxu aji saar parce que dama ko dépassé ban 1900 laa nekk di wax ay waxu golo yooyu doon kii amoon na jamono buñ ci tollee wax naa ko ko pare naa ci bu aji Sarr doon day ndakaaru sax sama yoon naw ci bu bu bu bu duggoon fii tëb état sax sama gat ne ko romb naa état bam étape bu ne ni mooy Macky Sall Ousmane Sonko Ousmane Sonko Macky Sall ah Ousmane Sonko day dem ci élection yi non non day dem non day dem jeex na léegi nag yoo xam dañuy raak dañuy taal dañuy mais day dem par force loolu laa gëm yéen yëpp dépassé naa ko sincèrement dépassé naa ko de boo leen seetloo bu baax xam ne live bi may def nii débat yi ngeen nekk ak yi ma nekk bokkul de yéen a ngi fële. ay jësaan xaw ma lan dafa bëgg an xaru dee naa deewut du gën a du ma wax ci moom intéressé romb naa ko TFM lu fa xew mbaa amul kuñ fa dama gàtt naw ci romb naa focus sur la participation de Ousmane Sonko point loolu rek dégg loo wax loolu jàppal dégguma ko focus sur la candidature de Ousmane Sonko et j'appelle tout le peuple sénégalais focus sur la candidature de Ousmane Sonko dama ne boo leen jàppee benn bi day réussir boo leen jàppee fukk day am yu leen rëcc boo buggee dàqee lëg lëg dafa mën a daw boo ko bëggee dàqee benn ngay dàq mun a dàqee lëg bi di dàq di daw point en voulant trop gagner on risque de tout perdre bàyyi leen détails yi concentré wu leen fii sur la participation de Ousmane Sonko aux élections deux mille vingt quatre point amul leneen. kon nag gars yi maa leen sant di leen gërëm di leen bëggee bu wër di leen wax ni focus 2024 pour la candidature tout simplement de Ousmane Sonko aux élections focus guys focus sénégalais nag ndem dafa naqare <laughs> focusal <laughs> Sénégal comme élève bu bu gëmmentu élève bu gëmmentu dafay naqare yee di ko ne demal sël mu ji mu ñëwaat dina law da nga mbéj maamam mu commencé waat di nga këdd mu ngi comme comme élève bu gëmmantu def xip xip xippali bët xip xippali bët focus leen sur la candidature Ousmane te ngeen bàyyi détails yi focus leen pour la candidature de Ousmane Sonko day dem ci élection yi loolu rek moo fi jar ngeen bàyyi détails yi bàyyi leen détails yi loisiveté loisiveté c'est la pire des vices dafa mel ni amu leen dara li ngeen di def man bu ma toppoon sénégalais yàqu na barke alxuraan saa yu ma yeewoo da ngay daw ba sonn ñu topp la da yeewoo ñu ñëw yónnee loxo ma Fatoumata Badio Ndiaye Fouta Tampani ñëw ma ma la <laughs> Fatoumata Badio Ndiaye Fouta lan la <laughs> xoolal vidéo bu ma la yónnee non non xool vidéo waxal rek. ma xool vidéo bi parce que dama koy bañ a may fii taluma ko non ne da day jaay <laughs> fa far léegi sonko nan da jaay ay parfum ay cuuraay ay nemmali ne na bii sonko la tudd bii jabaru sonko bi ma bàjjani sonko umpaañ sonko ma ah lii la hmm, ah d'accord d'accord xool ko rek xoolal xool booy dem rek ma bës supprimer pum